ñëwatoon alquran ci jamono ci bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne min jaami bokk na ci ñu dajale kitaaballahi téereb yàlla mu di alquran fawzahum wana seen taxe ebsan ci wattu ala aadi xeyral xalqi ci jamono gën ci mbindeef yi kullihim ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo mokkuloon alquran ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom lay jàngale mu jàngale ci fukki nit ak ñaar ànd ak wuute nag ci diggante borom xam-xam yi am na si ñoo xam ne ñi mokkaloon alquran ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom juróom-ñeent ko lim am ñu lim ñeent rek am ñu lim fukk ak ñaar moom ci la loolu li mooy lim bi nga xam ne ñoo mokkul alquran ci jamono yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mën ngaa wax kenn ku nekk ñoom ci xam rek nga nettali wala la xekk ci yow mën nañoo wax ne ñii ci jamono na muñ ci takk ko rek ne ñi rek la nekkul ku dul ñoom la mujjee sax dana war a ne moom na ci takk ko lim ci nam rek mooy ñii daal mokkaloon nañu alquran ci jamono yonent bi moo tax mu ne min jaami bokk na ci ñëwatu kitaaba laay téere yàlla ba xifzan bokk na ci ñu dajale kitaaba laay téere yàlla bi xifzan ci wattu alaamati xayril xalqi ci jamono gën ci mindee fi kulliim ñoom ñëpp mu doxale ci nag jumlatul inqiyaad ne yaa fawzu moo naa seen ak texe ñoo ñooy ñan mu ne zaydun moo ci njëkk ci ñim njëkk mooy Zayd ibnu Saabit Muaas ak Muaas ibnu Jabal Ubayun ak Ubay bun Kaabu wa Tamimu ak Tamimu Daari Abu Ayuba Abu Ayuba Lansaari dégg nga <clears throat> ak Ousmane ibnu Affan moom rek moo ci bokk ci borom ci xulafaa al arbaa ñoom ñëpp Ousmane rek moo ci mokkul alquran Zunnuurayni kay borom ñaari leer ndax moo dem ci ñaari soxnaa yi ñaari doom yi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam warxi chami mooy borom kersa ya <coughs> ko amoon kersa la wala nga ne daf ko rusoon yàlla rus ko malaaka yi rus ko moom Usmaan waaye nit ñi moom rusuñ ko ba ko rey rek laa moo tax doomu aadama kenn xamul mooy kan <coughs> xamut borom xorma mukk te da jox xorma kenn loolu laay ne ku bëgg mucc bul seentu dara ci doomu aadama yi lu baax loo daj lu la dal jugee ci ñoom ci musiba ak ci ñàkk xorma ak ñàkk teggin ak ci métit xamal ne àdduna noonu la demee loolu mooy li waroon a xam la lay bett mbaax gi nga xam ne doomu aadama yi jëflante nañ koog yow loolu mooy bette ndax àdduna la boo xam ne génn nañ ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xadis na soo xam ne yonent bi fekk nañ ko muy julli ñu sotti ko dégg nga <coughs> waaw ay eh, sébétit mooy mbaqi gërëm yi ak yu salte yi ñu sotti ko ko xadis boo xam ne yuuxoo nañ fa yonentu boole ko gi xale ki dof ñu di ko sànni xeer ba tànk yee nàcc yi adduna boo xam ne dem nañ ci ba ñëwee nañ ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne jéem nañ faa rey yonentu sallallahu alayhi wa àdduna boo xam ne jox nañ yonentu tooke mu lekk ko <coughs> booba muy génn àdduna sax tooke ba ma ngay waaw dagg buumi doqiya àdduna buñ def noonu yonentu tooke fa Abu Bakar tooke fa mu daal di génn àdduna àdduna buñ jëm paaka Omar ibn Xataab fekk ko mu nga julli fajar mu daal di génn àdduna àdduna buñ jaase dóor imam Ali mu génn àdduna àdduna buñ dàq imaamul Buxaari daal di ko génne ba muy mbébét ne yàlla rey ma ndax suuf si xat naag man àdduna bu ñu dégg eh, kenn la ci borom xam-xam yi sunna yi xam mu jëm yaa daf ko mayoon xam-xam bu bari ci jamonoom ba daanaka man ngaa wax ne rek kenn jéguwu ko fiiraange jàpp gaaña mu ñëw Saam fekk foofu bëri na ñu ànd ak lool moo tax mbir yi nekk yàgg na di xas imaam Ali wax ju ñaaw ne ñu wax ko ci moom mu taalif téere ci ngëneel imaam Ali gaa yi fekk ko ci jàkk ji ne ko taalifal ci Muawiya mu ne Muawiya man xamaluma ko benn ngëneel xanaa daal li yonentu wax ne yàlla bu mu suurati man daal loolu laa ko xamal dégg nga yonent nag bu ñaan lan saxaaba lu doy waar dafay mujj nekk xewal ci moom sax Muawiya mënoon naa lekk lu bëree bëri loolu xewal la ci moom mu ne ko man daal loolu laa ko xamal ci ngeneel gaa yi song ko ci jàkka ja di ko dóor ba mën ngaa ne ngóoraam nga sax yàq nañ ko ndax ci barabu ngóora ba foofu lañ ko doon dóor ba mu mujj yàqu ci la feebar ne yóbbu leen ma màkk ñu yóbbu ko màkk mu génn àddina ñu ne déedéet foofu ca ram la génne àddina adduna bu ñu def loolu imaamu nasaa yi nga xam ne mooy imaamu ñun sunna mhm. te boobu mage na am na lu toll ci juróom-ñetti fukki at mu ne adduna boobu bu ñu séntu mukk <coughs> moo tax Ousmane mooy borom ñaari leer yi mooy borom kersa ga yàlla sax daf ko rus waaye nit ñi moom rusuñ ko rereñ ko Ubaadatu ak Ubaadatu ibnu Saamit ak ibnu Mas'ud Abdullah ibnu Mas'ud kazaaka nag noonu Abu Zaydin waaw al-Ansaari yi ak Aliyun Ali ibn Abi Talib boole na ko ci ñu mokkaloon alquran ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñii ne gannaaw yonent bi te ñu mokkal alquran ak Abu Darda Abu Darda ci ñu mokkaloon alquran la bokk minal umam yi muy bokk ci mbooloo mi nga xam ne wut nañu alquran wa saalimun ak saalim addahu kont na ko adduhu dégg nga ak konteem ci ñu mokkal alquran wala boog adduhu ak konteem min xaafis yi ci ñu wutoon alquran zamanan Mustafa ci jamono yonent almi lammi كاجي دجلة كاجي مثلا تجيو ما كان خمني هيوم دفهم مثنيب جا أننا سهيو رواي يوري بيش مم من سالم نتري يوري ونن بوكونا سيو مقرون القرآن سيو مرين تبي صلى الله عليه وسلم خمني نجي نجرم ينتري أبي من كعب تميم داري أبو أيوب الأنصاري عثمان بن عفان أبو الدرداء معاذ بن جبل أكزير بن ثابت عبد الله بن سامر أبو زيد الأنصاري ممنك لمنا fukk ak ñaar zeydu ak muaz ak ubay ak tamim abu ayub ak osman ak ubadatu ibnu masud abu darda ak aliyun <clears throat> ak abu zeydin ak salim mais fukk ak ñaar ñoom la lim ñi ne ñi nga xam ne ñoo mokkaloon alquran ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku ñeent rek la woon dégg nga kon daal borom xam-xam wuti nañ ci ñi nga xam ne ñoo mokkaloon alquran ci jamono yonent bi waa kum jàpp leen rusulul haadi yonent yi aji jubal ji li man malaku <clears throat> ñeen ñi nga xame ni waaw ay buur la ñu woon salla yàlla na julli alay ilaahi sama yàlla baare un nasami ci aji bind mbindee fi yonent yi nga xam na ni ñoom la yonent bi yónni woon pour ñu dajeeg buur yi yóbbu leen leetarob yàlla bi ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci ñëpp la ko yàlla yónni moom xàmme moom buur ak baadoola moo tax laa laan bind ay leetar jëmee ci buur yi di leen xoo jëmee ci islaam léegi ñam yónni woon ci buur yi nag ñooñu la bëgg a jàngal balaa boobu wax nañ ne wafdu Najraan wafdu Hamdaan dëkkaloon na ko waaye dañ ko waxoon rek jàll délégation la boo xam ni délégation bu jugee Hamdaan dañoo ñëwal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak Malik ibnu Namat ak Abu Sawrin mooy mooy dul Mishar ibnu Ayfa ak Dimaam bun Malik as-Sulami ak bun Malik bañ ñëwee dajeeg yonentu sallallahu alayhi wa sallam fekk mu ngi jugee Tabuk <coughs> ña sol ay yére yoo xam ne ñu ngi ko ñëwee Yaman ak ay kaala yu jugee Adan waaw am gilem yu baax yu jugee Mahru ak Arhabu dégg nga daal daal di teg ay teg bant Maalik ibnu Nabat moo way ci wàllu rajas loolu ba muy wax ñu way yonent waxoon na ko ak keneen kenn ki ne xam daanu xayrun suuqatan wa qiyaalun laysa laha fi laalamina amsaalun mahallu alxadbu wa min al abtaalu laha itaabaatun wa biha daanu ñoo ci buur ci baadoola seen buur yi ñoo gën buur yëpp seen dagg yi mooy eh, seen askan wi ñoo gën a askan yëpp amuñ morom ci mbindeef ñoom ñoo dëkkee ci doj yi maanaam ñoo gën a kawe ñëpp ñoo génne jàmbaar yi alal yu tee yi ñoo ko xam waaye ñoo amit alal yi buur yi akal mooy yi nga xam ne buur ko jël ci peuple yi maanaam eh, ñoo ñoo doon buur yi daal Malik ne ko ilayka jaawas na sawaada riifi fi habawaati sayfi waa wal xarifi jaawas na jéggi nañu ñoom mbooloo moomu sawaada riif yi garab yi <coughs> barabu naataange yi waaw <coughs> riif mooy dëkk dëkk yi nga xam ne dafa jege ay dex ak ay waaw ndox naat lool sawaadu mooy am garab yeeg yooyu Malick na ko jéggi nañ barab yooyu yëpp daal di ñëw ci yow kon mu ngi ñoom fu naat dañ jugee mm, fi xabu waati sayfi waaw كيبندي ناري والخريف كيبدي مختمات درين لحبة بحبال اللي في وكيبومي تجي تندرما ما نام نيجي يرجلم يا خم لين لين لحبة ما يبومي تندرما دال دي جيجي بره بي ناري واو شي جمنون نورك نبت دال دي جو چيو انتو يالله محمد صلى الله عليه وسلم كوكو مي مالك من نمت مملي وحنا وفدهم دانا درقات شو هم دانا jaawo bañ ko dikkalee murtajisun aji waay la ci rajas mu ne lii fa yonent bi maalikun fi ahsani fi ahsani naxami ci gën rek laa wax <coughs> su mu commencé di nettali ñi nga xam ne ñoom ñooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci buur yi li ci njëkk mooy Amru bun Umayya ad moom la yónni ci Najaasi yi la woon waaye buur bu màndu moom la wax ne wa amrun wa amru arsaloo yónni na ko lil bari ca ka baax ka mooy asxamatin najaas yi mi nga xam ne moo doon ku baax ka moo doon teral saxaaba yonentu asxama moo doon turam wan qaada muhammadu xeyran xiyaadin gën ci muhammadu xeyra muttaqimin nekkul aji soxor moom reyut soxoree wu topp yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bu soxoroon boo xam ne soxoree rek de waaye yonentu moom jariñu dara ci najaas yi najaas yi mooy jariñu ci yonentu waaye ba najaas yi xamee loolu topp yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam boobu la xam tagg bay laa mi mu ne Amru bun Umayya moom la yonentu yónni woon ci asxamatu buuru Xabasha ñu naan ko Najaasi Najaasi daal di lool daal di topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leetar bi mooy bismillahi rahmaani rahim min muhammadin rasulillah ila Najaasi alxabasha yonentu bu xam day njëkk a tudd buur yi nag loolu daf laa leen merloo lool lu tax muy njëkk a tudd turam ci yow <laughs> waaye xam nga ne ab yonantu moo a kawe buur commencé ko ci tur yàlla ne bi mu jugee ci Muhammad yonantu bi yàlla jëm ci Najaasi buuru Habasha wala Najaasi Habasha gannaaw ma sant yàlla julli ci bi fa inni ahmadu ilayka allahu alladi laa ilaha maa ngi sant yàlla ci sa kanam yàlla mi nga xanamul benn buur bu jaamu lu mooy moom mooy buur mooy ku sell amul lenn lu manqué mooy jàmm mooy moomin waaw mooy muhaymin muhaymin mooy ki nga xam ne moo wut lépp mooy doxal lépp moo not lépp <coughs> mu ne wa ashhadu anna Iisa bna Maryama ruuhullaahi wa kalimatuhu alqaahaa ilaa Maryama al-batuula at-tayyiba al-hasiina maa ngi seet na Iisa doomi Maryama ruux bi yàlla la baata bi yàlla la bi nga xam ne yàlla ko tànn ci Maryama bi nga xam ne xëyg la maanaam jànq la musut xam góor ku teey la ku wëttu la maanaam musul moo yàlla fa xamalat bi insa fa xalaqahu min ruuxi kon ko sànnee mu dal leen bu insa yàlla bind insa mu jugee ci roxam kon moom roxam yàlla rek la bu yàlla sànni ci mariama mu mu juddu waaye du toqam mën ñu ci la jógee wara fa xaw mu wal ko kama adama bi yeddi yi mu bindee adama ci loxom noonu rek la bindee insa teew noonu yàlla yi ñu ne Iisaa ñoom doomi yàlla lañ ko jàppee yàlla na yàlla rëbb leen yàlla la na lu ne ni mu bindee Adama jugewut ci góor ak jigéen noonu rek la bindee Iisaa waaw mu jugee ci raxab yàlla amut baay yaay rek la am yàlla bind na ko amul ndey baay mooy Adama bind koo xam ne baay la am waaye amul yaay muy Hawa ci ndiggal ci faaru aadama rek la jógee kooku bàyyi la am waaye amul yaay bind koo xam ne yaay la am waaye amul muy yéen ci àll ñu gën a bëri muy mboolem bindee fi mu ne ko inni ad'uuka ilaa llaahi wahdahu <clears throat> gis nga ni ko tàggalee Iisaa gëm mu ne ko maa ngi lay woo jëm ci yàlla moom dong laa sharika lahu wal muwaalaatu alaa taa'atihi ci topp yàlla waan tatbaani wa tumina billadi jaani nang ma topp gëm li ma li ma li ma andi li ma yàlla andi jox nang ko gëm fa inni rasulullahi man yonent bi yàlla laa wa in yaaduma ko junudaka ilallahi maa ngi lay xoo di xoo sa mbooloo mi jëm ci yàlla mu kawe mi faqad balaxtu wallahi jottali naa wa nasaatu laaya biir naa la faqbalu nasihaati nangu leen sama laaya biir lii la yonent bi Najaasi na ko waqad baasu ilaykum ibna ammi Jaafar yónni naa ci yow sama doomu bàyyi tax Jaafar wa maahu nafaru min almuslimina muy ànd mbooloo ci jullit ñi wasalaam ala daa jàmm nag nekk ci ku topp njub noonu laa nuyoo xeebeer du nuyu mukk xeebeer na ko yàlla jàmm nekk ci jàmm yàlla nekk ci ku topp njub <coughs> leetar bi mooy leetar bi nga xam ne moom la yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di yónnee Najaashi boole ko Amru bun Umayya ànd ak beneen leetar beneen leetar bi doon sàkku eh, nga eh, may ko Ummu Habiba jàngoon nañ ko ba ñuy jàng soxna yonentu ne yaa si moo ko may kooku yonentu ko jox ndigal ne ko siit nag fexe ba jël gaal daal ci xebal janfar ak ñi ma ànd ak ci jul ñi daal di ñu fekk yonent bi sallallahu alayhi ñaari leetar yi la benn bi ko jëmee ci lislaam benn bi mu may ko moom mu xabiba xebal mbooloom mbooloom saxaaba yi nga xam ne dañoo gàddaay dem xabasa toog fa su ko defee <clears throat> najaasi daal di jàng leetar ba ne maa ngi seede ne kii mooy nabil ummi bi nga xam ne ahlu kitaab ñu ngi koy jàng wóor na ma ne ni Moussa doon bégalee aw nitam warkatu moo ko ni Iisaa doon bégalee aw nitam warkatu gëlëm nga ñoo yem warkatu mbaam moom mooy Iisaa waaye warkatu gëlëm nga mooy kii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Moussa daf daan bégal aw nitam ne maa ngi leen di bégalee yonentu boo xam ne day ñëw sama gannaaw mbaam lay war mooy Iisaa mbaam rek la daan war ku dëddoon àdduna mu tëdd dox ba guddi tëdd mu daal di tëdd moom ab dara moom sallallahu alayhi wa yal na yàlla gërëm ko moom yonent waaye ba mu fay jógee it daf ne maa ngi leen di bëggalee warkatu gërëm ga muy Ahmad warkatu gërëm ga mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa wax ju yéeme ne wa ayaana laysa bi ashfa min alxabari anhu xibaar yi ma jot ci yonent bi bu ma jënoon ak moom it du ma yokk dara xam naa ko xam ngoo xam ne su ma demoon ba gis ko it du ma dara moo tax nekk buuru am àdduna du la tee jàng Najaasi moo buuru Habasha waaye jàng na téere yu njëkk yi xam na xam-xam ba nga xam na ni ba yonantu ñëwee rek ko wóor na ko waajira mu ne wallaay su ma demoon ba teg ko bëtit loolu du yokk dara nag xam naa ko xam gu xóor <coughs> yàlla moom may na ko sans boole na àdduna ak àllaaxira ko defee nag mu daal di bind leetar yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ko leetar bi mu jógee si Najaasi asxama maa ngi lay nuyu yàlla bi ak yàlla yàlla nekk ci yow ak barke bi yàlla mi nga xam amul benn buur bu ñu war a jaamu moom yàlla moom moo ma jubal dugal dugal ma ci islaam jot naa sa leetar yow yonentu yàlla bi li nga wax si maa ngi génn ci borom asamaan suuf ne Insa rombut loolu du toll ni xocc xonc ak tàndarma li nga wax rek noonu la Insa mel li nga ñëwoon ak xam nañ ko waaye jàppal ne maa ngi seet na yonentu yàlla nga ku dëggu nga kuñ dëggal nga jaayante naag yow jaayante sa doomu bàyyi tax yu mooy jaxfar jébbal naa ci ñaari loxoom ñeel yàlla mi borom mbindeef yi maanaam dugg naa ci lislaam daal xebal naa nag ci yow sama doom dégg nga boo bëggee ma ñëwal sama bopp maa ngi seet na lépp looy wax dëgg la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mu jël ñaari gaal benn gaal ga mu xebal ci doom ak <clears throat> mbooloo mbooloo moo xam ne mën nañ juróom benn fukki nit ci ab gaal beneen gaal ga mu yemel ci janfar dégg nga ànd ak mbooloo bañ demee ba ci digg géej gi gaal gi nga xam ne ci la doomam nekk daal di lab doomam jaag juróom benn fukki yi ànd ak moom daal di dee loolu la yàlla dogal gaal gi nga xam ne moom la janfar nekk ak i saabaam te motoon nañ juróom ñaar fukki góor ñu ngi sol yére eh, suuf yu am ay karaw daal muy yére suuf yanke juróom-ñaar fukk yooyu am na juróom fukk juróom-benn fukk ak ñaar yoo xam ne ci waa Habasa lañ juróom-ñett yi ci waa Sham lañ ñooñu moom ñoo xegg ci yonent bi sallallahu alayhi di dajeeg moom. <coughs> foofu nag ba yonentu dajeeg na ko danga maa ci jikko ak ci bind Jaafar kontaan ba yëngatu ndax li ko yonentu wax kooku mooy. <coughs> najaasi moom la yonentu njëkk a xoo ci buur yi wala boog moom la yonentu yoneen amru bunu maya mu daal di gëm ba nga xamee mbooloo mi nga xam ne jugee nañ xabasa dem nañ bari jeg yonentu sallallahu alayhi wa sallam yonentu daf ba yaasin jeex ñuy jooy yonentu ngay jàng ñuy jooy ñoom ñëpp daal di gëm yàlla ñoom la alquran di wax wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qaalu inna nasaara gis ne ñi gën bëgg jullit ñi nekkoon nasaraan laa la wàcc lay wax ne nag ama lazi ki nga xam ne ne xatta walla falu na nag baada asxamatin gannaaw asxama fa kaafirun kooku xéeféer la xayru maarufi suma xamuñ turam dégg gu ràññeeku gi rek laa gannaaw Najaasi nag am na beneen buur bu falu moom Habasha waaye buur bu moom xeefeer la kenn xamu turam xamuñ ndax dugg na ci islaamam déet xamuñ turam maanaam daal daanaka daal kenn xamul dara ci mbiram loolu la ko borom xam-xam yi waxee moom it loolu rek la wax ci moom. هذا يريد الإسلام واستقامت وما توفيقي إلا عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته